abdu Kokki nag kooku. da nga ko wax na de. xam nga ki xam nga nga feebar kooku nit faj la loolu dafa doy waar de. waaw ko ci way bi de ndax ko waxee parce que damaa amul ay millions ak ay milliards yu ma ko jox. Mm. te olof Ndiaye nee na kuy woddoo làmmañ soo noppee rafet. Mm. man maa am sama làmmañ bon man ku ma defal lu baax ma wax ko mu ni réel nag ba ñëpp yëg ko mm. Abdou Kokki kooku damaa feebar mu yóbbu ma clinique. génn ay millions yu bari ma def ca clinique ba presque trois semaines xam nga clinique daa neex fur wi yañ fa indi rek ah frigo ba dend ak man jus yu neex yoo yu da yoo xamante si ni man wér naa bu yàgg man maanaam man trois semaine laa fa waroon def de mais man wiir naa bu yàgg man semaine bi ak fekk na ma wér mais man dama doon deedeelu ku ma wax na docteur bi ne saa daaga ah, ma ah eh, man eh, eh, xool loo bëgg ba ñu pop ak banana ak jus yi. Hmm. mujj gi docteur yi jaaxle quoi su ñëwee refee ma eh, eh, eh, neen pom yi banana yi waay ñu naan ma yow xam nga lan la yow wér nga de non man wéraguma wéraguma nañu fi bàyyi ba karab fekk na clinique ba ma moo sedd te neex